bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaa baadoola bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay mooy baadoola ñëpp war wóoroo te yaay digle koor gi fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi sëñ Daouda yaa baadoola bilaay mooy baadoola eh, eh, eh. waaw waaw koy Njaay Ndiaye waay Ndiaye. waaw xaaral ma xaaral ma xaaral rek ah, bul wax bul wax. bul wax bul nuyoo maa ma suutu. dama laa soxla lool. waaw soxla si jàmm. waaw. Ah, teel loxo yi. waay jëlal loxo gis na Mbawu Ngalla. jarul nga nuyu damaa bëgg nga teesee loxo. waaw baax na baax na bisimilah bisimilah. Mbawu Ngalla nun ci lan maanaam. toog nga suñu digg bopp yi. maanaam déglu ma rek. fott waa quartier bépp ndax Mbawu Ngalla. mënoo woote sa kër réunion da nga maam ne da ngay aaye whatsapp waay bër sinap ak lu ne nga avayé ko ni lépp la ñu avayé ba tey nag noonu laa ko mën a tere waaw kay nag waaw bu waxul dëgg wax fen na wax fen waaye dama koy tere déglu ma rek bëgg ma ko ci quartier bi mani mani ndax sama maam bëgg ko fi mani maam déglu ma ànd ak jëwante tàggoo jëwante waaw mbaw ngaa la yaa ngi les sa kër gi mënoo ko lijjanti ngir jëm yàlla ak yonent bi sama kër laa njëkk a lijjanti ba ma doog a réglé quartier waaw léegi borom sayu mboobu sa kër ga ni sañ sañ ñaaral da nga ma mel kuy gàddu sayu mboob ko jaar si ngelaw li muy fararal kooku kana borom tur wi mënoon ma sa kër ga waaw kooku di xaarim lañ ko tuddee waaw léegi lu dox sa diggante nga jàpp boobu ni ko ñureet ba am nal bu leer nañ ah. baax na baax na Ndiaye jërëjëf yow loolu rek moo la naqari maanaam daal yow sayu mboobu dong moo la met na dañ ah àgg naa ca kër ga mooy wat naa ko am sa gej bu dañut bu ma dëggatee nga yow baax na baax na daanaka boo ko dee boo ko dee xool Njaay dafa wax dëgg fi mu toll nii ndax ngóor si boppam bii tey laa koy nuri doon xonq torop xaarim xaarim xaarim waa xanaa xaarim nekkul ci kër gi eh kaay fii yow kaay fii léegi fekk si ma fii gaaw xaarim xaarim kaay fekk si ma fii oh, ñëwal fii yow gaaw aywa xew lu mu doon eh ñëwal fii laa ayo père lan la. demal fee nga andi ma satal ndox gi ak sa ak potu saabu bi gaaw. lan la lu xaw. demal andi ma potu ndox beeg satal satal ak saabu bi taga taga fay sa sa musique bi. dafa ah nekk ak man ci quartier bi rek bëgg maa yablu bëgg maa yablu dafa nga ne sa bàyyi Youssou Ndiaye daleeg man fee naan ma euh, say boobu beeg loolu lu nekk mu dema ko wax nga bëgg maa yablu rek ci quartier bi nga yegg loolu dinaa ko nangu xalaatuma ko pare naaj. dinaa ci dinaa ci jël samay matuwaay ba mu mat sëkk sëkk léegi li may bañ ci quartier bi fii laa ci waaw ci kër gi laa koy commencé waaw fayal musique bi fayal musique bi. waaw waaw lan lan la. waaw fayal mu doon. demal ni ma sama mbukkewee ta nga jaar fee indi ma raasuwaat bi gaaw acca léegi ta nga léegi léegi fii laa koy commencé ci kër gi ci kër gi. am na yoo xam ne si moom moom moom pare naa ci moom. Pape sa maraayu gee jënd de. waaw baax na jërëjëf. fan la rasoir ba nekk. boo amoon jom da nga ma ay maraay yu baax yu bees. fan la rasoir baa nga ne ca kaw pied ba demal nga ñëw. ko xool nga di ko wax ñàkk jom ñàkk da koo yéexee wat wat wat gi da nga koo yéexee tooye la. andi tooye lan mu gaaw andi. bi. lan lan bi xaadim andi rasoir bi. xanaa bu ko wat doo doo doo kaa mi wat la. toogal. waaw toogal toogal. loo bëgg. toogal àggal suuf. waaye ah. fa nga ni mos xam nga ni. ma bàyyi ma sa bopp bi nii mu mel nii dafa nga ni dafa nga ni lii jaar ah. bombal bombal. yaa may xëj xëj nga xëj. bombal la ah. bëgg sax amaguma. sa bi sax dafa ndox dafa ndox maa maa ngi kii xam karaw karaw karaw def saab muy fël saab bi muy wat defe nga ni gii karaw jaaduwut bombal ma ba ci kat ba di yëg yëpp gi na set bombal dafa ndànk xaar ma bombal bombal waaw bombal rek <laughs> koor ka fay waaye balaa bi nga dog koor gi